jërëjëf suñ mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaar mbokk yi tey ñu teewaat fii parcelle unité 19 ci mafia bi nga xamant mooy mafia wu Sokana bi li waral teewaay bi nag mbokk yi remise de drapeau la ñuy def Bokel production le 3 décembre fële ca arène nationale si combat yu neex a neex yoo xamante bi nii yaakaar naa ne amateur yëpp ñu ngi koy xaar ci biir saan yooyu Sokana mi toog yaakaar naa ne ñëpp xam nañ ko ci réew mi ak ci bitim réew mais particulièrement Parcelles Assainies 1 ba 26 yaakaar naa ne tàkkusaan googu Belende dina fa bëre ak ngeer bu sac Toubacouta dina fa bëre ak Ferraille nëb dina fa bëre ak xale bi xam mooy parisien waaye Diop 2 dina fa bëre ak volcan bari na ay ndaanaan yu bëree bëri yu fa war a ñëw wane seen bopp tey nag ñu ñëw fii parcelle ànd ak Abou Thialimber njiital bogel production war a jébbal ki nga xam mooy soo Sokana mafia bu dëgër bi drapeau bi laataa loolu dañuy nuyu promoteur bi yaakaar naa ne Batika mi ngi fi Sokana aussi tamit mi ngi fi ay am na jàmm yeeg xarit yi yëpp ñu ngi fi dañuy nuyu promoteur bi bu ko defee ñu jublu ci waxtaan bi Batika moom xam naa ne dañ koy yeewi léegi ndax Bilal la day noddi léegi si kanam <laughs> macha allah ñu koy félicité ci lool bu baax a baax a baax a baax a baax maa lay siyaare bu baax di la di leen bëggee bu baax di nuyu ñu fi nekk ñëpp di nuyu waa parcelle 1 ba 26 di ziar sama grand Sokana yàgg nañ trop di ziar tamit suñu grand Batika mm-hmm. waaw ñu yàgg liggéeyal waa parcelle lañu mm-hmm. moo tax ñu ñëw fii tey. Mm-hmm. macha allah loolu am na solo Vatican maa la siyaare bu baax di la bëggee. waaw ñu ngi lay fay ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci Seydina Mohamed sant suñu waa am de rafetlu seen teewaay dina wax àddina nii la am de di ñaanal réew mi yàlla na ci yàlla def jàmm. am de équipe nationale bu ñu jógee yàlla na leen ci yàlla may ndam ndax ñu ñaan rek la ñu mën. am de yàlla na yàlla barkeel yëpp daraje Seydina Mohamed. ci loo ne. waaye sant borom bi rek waaw sant borom bi wér-wér. Mm. waaw Fatick ah, da ngaa xaw a sedd lool ak baylaat beeg. non dëgg la non fedd duñu sax xam nga fedd duñu billaay wala mënuñu fedd ay euh. waa Kër Sëñ Touba mënoo fedd. wallaay ndeysaan dëgg la dëgg la dëgg la. Mhm. waaw. Fatick a nekk Bilal. waaw loolu moom du dara loolu moom ah. nit moom ñëpp Bilal. ndax nit yàllaa ko boo demee ba nekk xale di foo boo demee ba nga xamante yaa ngi xale di liggéey léeg-léeg ngay ne ci lam boo demee ba nga xam ne waa ngi waajal 40 ans wala dara da war a changer. arrière si waaw arrière xoolaat sa bopp léeg-léeg mhm. mais Sénégal balaa ñëw andière dañuy mm. béy ñu leen di ketal wala ñu leen di kuuf di summi te loolu rafetul quoi nit nag boo xoolee sa rek yow yaay ñëw lépp mu ne ñëpp tey may bilaal ñëpp ndax la xam ne mi ngi noonu la dëgg la waaw loolu yàlla salaat ñëw leen ci julli gi la mi ngi noonu comportement la <laughs> waaw loolu comportement la bu la yàlla dimbalee ba nga xam ne lépp borom bi la mm-hmm. moo tax yàlla moo fi moom ñëpp am déet waaw mm-hmm. lépp da yàlla da yëpp dañ ko ñaan ñi nga xam ne nekkuñ ci woon da di ñaan leen yàlla dimbali ba ñu mm-hmm. ñëw diine mm-hmm. waaw ndax nit ki boo kiyee ndax kenn muccagul yàlla rek moo xam koy mucc mm-hmm. waaw nit boppam la xam mais xamul yàlla fàttewul kenn ku yaakaar ne yàlla da dala fàtte nax nga sa bopp balaa nga xam ne yàlla fàttewul kër gu ne yàlla jël na fa kenn nga xam ne kon fàttewul kenn mm. waaw mi ngi noonu macha allah ban jàkka ngay noodee parcelle ban unité waaw fu ñuy jaay unité 19 rek mooy suñu jàkka terrain basket bi. Mhm. waaw unité 19. yow yaay nood foofu takusaan fajar. waaw yëpp kay waaw waaw heure bu ma ko kiiyee rek man la mi ngi noonu. yàlla amul benn problème yàlla na ah. yàlla def li gën. mbaa nood gi neex na rek. waaw day neex loolu moom nood mbër moom fu waay toll di dégg. non dëgg la xam nga bu la fekkoon ngay yëngu ci ay xaysaag yooyu yëpp sa baat boo xoolee sama baat nga xam ne waaw mi ngi noonu. baat bi toj na waaw baatu diine laa yor. <laughs> baatu diine waaw waaw mi ngi noonu. <laughs> promoteur bi baatu waaw mi ngi noonu xamante ne moom suñu rakk la di ko ñaanal wér ak gudd fan xale boo xamante ne am comportement la nekkinam ñëpp a ko rafetlu mm-hmm. ndax boo dee xool chaque jour mi jaar lee di wut ay tegtal def ni yëpp xam nit ku baalu bu ko ba ñëw ba sama kër ni ma mm-hmm. boo yëgee nit ñu ànd ak yow mm-hmm. boo yëgul nit nit ki continuer ku xool gauche nga xool rek ku xool lu la yàlla jox nga jël ko yàlla na ko yàlla jàppale waaw ndax comportement la tey lii mu def ci boppam ñëpp rafetlu ko jël drapeau indil ko soo am de du loolu comportement la am de soo di ko waxal loo xam ne moom it ñàkkul dara ndax boo nekkee ci dëkk bi am de di wax nit ñu comporte def leen nii def leen ne am de loolu nit ñi dañ koy bëgg waaw loolu comportement la kon loolu lu rafet la waaw di ko ñaanal yàlla na affaire bi réussir ba mu jig leen waaw ndax ñun ñu suñu bopp yàlla moo moom lépp daal nit jaam sababul rek la am waaw promoteur di ko ñaan di ko dooleel waaw yàlla na nekk ci promoteur yi nga xamante ni ñu gën a ràññee ci Afrique waaw ndax loolu comportement tey mënoon a def leen mais lépp bi ngi xool booy yi nga xam ne sonn nañ amuñu ki di leen jox dépense te dafa doon mm. promoteur boo xam ne dafay àtte dëgg ndax joxul la pas promoteur yooyu di jox nit ñi billet ak ay xobu ñambi demal jaay na la mm. jëlali liggéey ci loolu comportement la mm-hmm. waaw di ko ñaan na ko ñëpp jàppale ministre yëpp dégg ko mu xale la mm. boo dee xool promoteur yëpp moo ci gën a nekk xale kon loolu ko waaw mi ngi comportement la Mm-hmm. waaw bu bàyyee lépp ñëw yëg làmb xam na ñëpp dañ ciy rafetlu waaw ni yow dineen ñaanal seen chaîne yi mm-hmm. yàlla doon chaîne yoo xam ba mujj nekk tele amiin amiin waaw ndax àddina moom nit dangay ngay rek mm-hmm. waaw di ñaanal askan bi na ñuy góor góorgóorlu waaw waaw dañuy góorgóorlu waaw nañuy góorgóorlu ndax télé yi ñuy yàqate wala mu ñu daan sa nga dem jël stade yi toj ko am def lu neex jam de nit rool nga loolu baaxul nit ki dee day bette chaque jour moo ko bu doon ordre lay ñëw ñëppay dem àjjana mais désordre lay ñëwee <laughs> mi ngi noonu boo xaaree yàlla sa kaw mu wàcc suuf boo xaaree suuf mu wàcc kaw wala mu tiso diggante bi <laughs> kon na nit ñi am yar am teggin te wàññi àddina defar lu baax rek moo fi am yàlla lool lay atte mm-hmm. nañu respecté julli respecté lépp am déet waaw mi noonu ku lay romb nga jox ko cër bu ñu ko mm-hmm. defee jàmm lépp daal borom bi da koy bëgg waaw waaw non loolu dëgg loolu comportement loolu moom nit boo amee ba vingt ans chaque jour soo loolu lay atte def leen leen naa du am na mi ngi noonu ku nekk ci dëgg mu wax leen lii moo nekk ci dëgg keneen ku nekk ngaan li loolu yàlla lool la bëgg ndax yonent bee ko wax ci mbaaxu nit wàññu sa mbaax dara kon yàlla na comportement yàgg mm-hmm. am déet suñu promoteur bi di ko ñaan yewit am ndax nit ah ku waaw dafa yaru nit ku baax la ñun daal mënuñu wax daal ndax tey boo xoolee ñëpp a kontaan tey bu ñu ñëwee drapeau jox ñëpp dañu kontaan loolu mooy àddina mm-hmm. loolu mooy àddina mooy nit ki tey boo ko tuddee dama ne woon yow xeeboo ko mm-hmm. xeeboo ñi mu ñun ñëpp benn lañu waaw ñun ñëpp benn dafa waaw a ñëwee arène nationale waaw dëgg la tey boo dee xool arène <laughs> nationale dinaa ñëw mais comme tey soo dañu waxtaan ba mu di ma léegi batika mu di ma léegi rafet jàkk ji bu ko defee loolu yëpp mi ngi loolu comportement la tey waaw waaw dëgg la xam lépp xam suñu bopp mais nu mu demee rek mi ngi noonu yàlla moo ñu moom waaw bu ñu fekkee mën nañ fa teew it loolu du dara ndax kii sama nit la sama kii ñëw nii ne du dara ndax bëriwuñ dañu ñëw ci stade mais lu ñuy bañ mm. am deet may sol ay ne ci loo xam ne neexul yàlla loolu ma doñ koo def do am deet mm. comme niñ ma woon bi ma jëf benn émission boo xamante ay salon coiffure di kii ma bombardé leen yooyu du ma ko soxla <laughs> wan comportement rek publicité wu ma mais publicité da sëñ Touba wax jaam ñi nii la mel kilifa diine bu àddina tafee fi ñoom ñoo tax yàlla nañu yàlla taas ci seen barke yàlla nañu yàlla taas ci seen barke kilifa diine yi di dorëjee sëñ Fall macha allah yaakaar naa ñaari question laa dese lii moom vidéo spéciale la la de Guiers moom xanaa may nga ko revanche moom. non Lac de non Lac de boo dee xool tey boo dee xool ñëpp tey bu ma nee ma ne si jàkka ji di leen ñaan ñoom ñëpp jàmm Lac ni nit ku baax ku am nga xamante ne bu ma doon ko mbër yu si ëpp entraînement Lac de Guiers 2 laay wax. waaw ndax na ma yonent bi wax ci mbaax ñu wàññul sa mbaax dara nit la daf may woo téléphone baax ñuy waxtaan lépp lépp mu ni nga wee moom laa bëggaat nga xam ne kii nitu àjjana la àjjana ñii ñoo ko moom <laughs> ñii ñàngal ñoo moom safara kon yàlla na jàmm yàgg yàlla na jàmm yàgg yàlla eh, na jàmm eh maa ngi lay jaale Ramadaan ah. waaw dëgg billaay wala moom laa waroon njëkk a jaale billaay xale bu am komp ku am yar xam ne diinee ne ci moom Ramadaan mm-hmm. xale bu mu ñëw ñaar loxo la lay nuyoo barki xàmmeewul lii wala laa di ko ñaanal yal na ko yàlla xare àjjana yal na ko yàlla xare àjjana yal na eggalee ndawam àjjana Ramadaan nit ku baax a baax dama koy fay ñëw ci soo kaan ñëpp ku ne wala téléphone billaay wala yal na ko yàlla yërëm mm-hmm. yal na ko yàlla ñoom fa fekk ñoom Moussa Dioum ñëpp ametitlu Ramadaan nit ku am comportement dem nit ku am fulla tey ba muy nekk ci làmb mu ku ne mënoon na koo daan ci làmb mm. mais làmbam neex ci mais daf ci bàyyi ne xaarakat ma wàññi làmb dem nga xam loolu comportement la ci ram daan lépp maa ngi koy di mm. am de wala leen ma bal di wax di Balla Gaye nga xam ne ñooñu comportement la mm. ndax yàlla moo dee nit bu demee ba génn àddina di wax ay nit nga xam ne ñooñu am na cofeel bu mu nekk ci ñoom am de tey nga xam ne comme nit ñu baax lañu am ne comme Tyson nit ku mu ne Tyson laa bëgg ak Balla Gaye ñooñu nit ñu baax lañu moo tax mu feebar tudd leen am na ñoo xam dañuy feebar soxla ñu tudd ñeneen ñi mais mm. tey ñooñu ni ñu ko tuddee xam ne ñoom nañu war a xam ne kii bëggoon na nekk na ci ñoom nañ koy ñaanal soxlaatul alal soxlaatul ñaan mooy léppam yan nañ koy wàcceel kaamin Balla Gaye di wàccee Ramdan Kaan ay taser yëpp ndax dafa dem ba géer soog soon wax leen ci feebar bi ñu ko woo leen xam ne loolu comportement la loolu nga xam ne nitu diina la xam ne ñii kan ñu baax lañu kon yàlla na ko yàlla yërëm Ramdan xayra ko àddina di ko jaale waa parcelle 1 ba 26 ñoom zos di leen ko jaale ñoom garga ñëpp 1 ba 26 moodu fàttewuñu kenn di ko jaale soo ndax ku bëggoon soo dañ koy fekk fii kesk bi hmm. kon loolu la yàlla na ko yàlla yërëm hmm. xare ko àjjana ci lépp barke yàlla nay barke yàlla na barke yàgg. amiin <laughs> macha allah <laughs> mbokk yi mi ngi noonu am na mbégte ak contentement bu rëy rëy rëy ci ki nga xam ne mooy Batika wax dëgg yàlla àdduna nii la moom boo ko gisee bi muy nekk si làmb ji sax diineem la àndalan ak ngoram ak digniteem macha allah ba tey mu xëy bàyyi làmb gis ngeen ko ci jàkka ji yi nga xam ne mooy 19. mooy bilaal ba moo fay nootu macha allah ñu koy jaajëfal bu baax mbokk nag soo kax na da ngay ñëw tooge nii baay bi ñëwal nga tooge nii def lu la neex ñu nuyu sa wàcc di leen siyaar bu baax di leen nuyu yéen ñëpp di leen jaajëfal di siyaar rakk ji moom calambeer moom bu ñuy wax rakk ji sax si mm. mafia bi la bokk si digg ñagatang bi mm. parce que moom bi muy booy ba màgg nii chaque jour mooy fi mm. lu muy def day ñëw nandal ñu xam li mu la wax moom daal fii la bokk p deux trois fii ñun ñëpp benn lañ waa di sedd bi rek lañ am mm-hmm. waa di leen di leen masaw si loolu parce que di liggéey di taxaw moom dafa metti mm-hmm. kooku moo tax dañ leen ñaanal suñu borom mu fay fay gën fay parce que mooy fay ku yàlla fay moom raw mm-hmm. di ñaanal promoteur bi tam yàlla fay ko fay gën si fay xam li mu la wax lépp loolu leen bëgg si Sénégal mu yombal leen ko seen liggéey yomb parce que dëkk dañu soxla journaliste mm-hmm. parce que journaliste dafa bokk si dëkk parce que bu journaliste amul dara du am média du am annonce dara du am yëgle du am doo jot xibaar doo kon boog yéen journaliste yi Mm. parce que suñu borom moo jara dénkaane yàlla na leen yàlla taxaw may leen gudd fan ak wér gu yaram mm. ngeen teral seen waajur yi seen rakk yi seen am di jàmm yi mm. parce que àdduna loolu rek la de mm-hmm. dara saxul macha allah mun ngeen ñëwaat fii ñu ne leen soo génn àdduna jooy rek ngeen def wala ñaanal ma xam ni mu la moo tax kon ñun raay rek moo ñu desee kon nañuy wax réel toog bi du noonu réel toog yëg-yëg bi nga xamante bi nii abu am na ko ci yow ak confiance bi bu tuddee la li nga xamante bi ni mooy drapeau première édition drapeau soo kaana si lamb bu ma juumul oui Abu kay moom lu mu def macha allah Abu kay mooy loolu gaan Abu ndeysaan ama rek Abu euh. mooy aboori jaal. waaw mooy góor yàlla bi. Euh. xam lu mu la koy fekk si loolu parce que Abu moom dëgg rek la xam. Mhm. man làmb sax ñëpp xamoon nañu ne soo dafa fente woon. làmb waaw arrière woon nga. arrière woon naa te sax xam lu si dëkk bi. Mhm. si town bi taxaw néew di doole yi. Mhm. est ce que xam wax di bi nekk si dëkk bi. waaw parce que ñun ci dëkk bi lañ dëkk. fii lañ bokk vert jaune rouge. waaw ak quarante sénégalais. parce que ñun muy njiit bi muy nguur beeg muy ministre beeg muy général beeg muy procureur ñun ñoo yem. Mm-hmm. ñun ñoo yem fa yàlla su lee bu leen neexee ne mun nañ ñoom ñoo ñu ëpp cadre mooy si lan si galon. Mm-hmm. mooy ñoom ñii ministre lañ ñii président lañ ñii procureur la kii général la mais ñun. Mm-hmm. ay nitu mbedd lañ dañ koy ndamoo ñun tamit lu ñu yàlla jox dañ koy ndamoo. abu bu xewlee lu ñu mënoon bàyyi dañuy ñëw jàpp si moom. parce que dafa am yitte. parce que bu ko neexoon dem beneen feneen si am na ñeneen ñu mu xam ak ñeneen. Ah. mais dafa fente ñëpp. ñëw ba fii. Mm-hmm. ne ma fiyaa bi la. est am la doomu aadama nag bu la sexalee yitte. Mm-hmm. nga delloo ko yitte. parce que kóllëre moom ku ko feccul ginnaaw lay féete. Mm-hmm. parce que moom yëg-yëg. mooy lislaam parce que doomu aadama boo amee yëg-yëgam rek raw nga. parce que bu ñu nee xool prophètes yi ba si saxaaba yi fu ne lañ doon dem di taxaw lislaam fu ne fu ne. xam nga looloo kii tey bu ñëwee nag wax ñu loolu lu toll ni loolu mm-hmm. lépp lu ma màttoon ak lu ma logoon mm-hmm. dama koy bàyyi parce que doomu moom amul lenn lu doom aram parce que yàlla nit la gën a fonk si mu sàkk mm-hmm. moo ngi nii abu mu ñëw ne ma soo drapeau laa lay tuddee mën na ko rak lu la neex defal mu ne ma soo laaju ma la dara man maa lay tuddee drapeau yow mafia bi du sóode mafia bi la ko tuddee 1 ba 26 xam li mu la mooy vingt ba ak Sénégal ñun nag boo ñu delloo dara. Mm. jox ñu dara mm. dañ lay delloo dara jox la dara. moo yite beeg yëg-yëg bi. moo tax ñun leen lul ànd ak moom ak yéen. Mm-hmm. xam li mu la wax parce que man mooy li mu la wax rek am naa ay waajur. Mm-hmm. ama demoon ba fente. Mm-hmm. ndax ñoom. mais lépp lu am dañuy waxtaan rek. macha mais abu bisam moom suñu bis la. macha allah dañ koy tàngal ba mu tàng jëpp. kon mooy yoon. macha allah yaakaar naa ñu ngi ci jëppaandaw gi. yan qualité nga gis ci euh, diggante Zokaana mi ak Batika xaritam ba jël drapeau tuddee ko kaana doom ndeyam ñëw yaakaar naa ne am témoignage yu mu def yu rafet a rafet ci yow. waaw ñoom ñaar moom ay kilifa lañ. Mm-hmm. boo gisee ma tuddee leen drapeau bi lu yàgg la depuis bu may nekk booy bu ndaw. Mm-hmm. fekk yëpp xewagul sax. Mm-hmm. dama doon dama doon defal lu ne. dama doon fekk saal lu ne la ma doon defal. dama doon am combat bu may jox di yëkkati xaalisam dama ko jox. di ma jox ay mbuur ak lu ne la ma doon defal ba pare tam ma gis ne tam kuy taxaw jeunes la surtout waa parcel day faytal waa parcelle loolu laa gis moo tax ma ne kii nii delloo ko njukkal war na ko moom ak mafia bi yëpp waaw kan la kan ak ñaari mbër yi bi mooy Moussa Balla mhm. ak euh, Bébé Xarañ Bébé Xarañ ak Balla Moussa ak Balla Moussa ak Bébé Xarañ Bébé Xarañ mhm. ma bàyyi la nga tàggoo waaw di sant ñëpp rek di ko sant di ko gërëm di leen sant yéen ñi fi nekk ñëpp di sant tamit samay waajur bu baax di sant waa parcelle 1 ba 26 comme d'habitude rek rawatina waa 25. di sant ñëpp daal di gërëm ñëpp amuma leneen lu ma si yooku mm. waaw rendez-vous rendez-vous le 3 incha allah arène nationale waaw xaw a mooy loolu <laughs> gërëm yooyu mooy lu ñu war a suñu rakk bi gaañu waaw ramdaan yàlla ko yàlla xare àjjana amiin amiin yàlla ko yàlla xare àjjana suuf sedd si kawam parce que rakk ju baax la woon waaw fu ne la di ñëw fii dafa ma doon seeti tout temps na ma sóol lii ak lii ak moo yëg affaire bi sax dama sama sama fut bi rës la def <laughs> dama ne lii mënul ne mais yàlla moom li barika di wax rek yàlla moom bu ñëwee rek ñëw na waaw booy bu am diine la am yëg-yëg waaw di ko jaalal waa gàllam di ko jaalal waa unité 3 waa parcelle ñoom zos mhm. ñoom gaa yëpp yëpp mbër maa leen koy jaalal yàlla na ko yàlla taxaw yàlla xare ko àjjana mhm. waaw di ñaanal na gaa yi ko defal ko wàcceel xam nga surtout loolu ñaanal ko ay ñaan yi nga xam ne mooy ñu gor boo xam ne dafa génn àddina kon yàlla ko yàlla taxaw suuf sedd si kawam di ñaanal waa Sénégal nag surtout loolu di ñaanal suñu équipe nationale bi nga xam ne mm-hmm. coupe du monde la jëm parce que mooy représenté Afrique mm-hmm. parce que Sénégal si Afrique la bokk di ñaanal suba képp kuy ñaan ak képp kuy yéene lu rafet mm-hmm. ngeen ñaanal Lions yi parce que Lions yi sonn nañ trop parce que nga ñëw ba coupe du monde di waaye ñëw ñu ne la sa meilleur homme ak sa ak sa capitaine xam ne lu la wax Sadio Mané moral ak lépp blessé na kon boog yaa